اسمي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 ربي كلا سوف تعلمون ما كلا سوف تعلمون

Atia tourné jàkkaarloo fii. C'est nous. Est-ce que les enfants, les parents ou l'État dafa foofu sa baaraam ma ñëw. teewal li nga xam ne moom mooy parents d'élèves yëpp kon dañ leen di jaajëfal ñoom tamit di jaajëfal aussi suñu. inspecteurs yi nga xam ne ñoom tamit dañuy jàppale di ñu tette di ñu won yoon bi saa su nekk bàyyiwuñu benn yoon bàyyiwuñu benn yoon kon loolu noonu du ma si sori sax parce que moom ci bopp sànq si suba nekkoon na fii di wax inspecteur bu français bi moom dafa xaw a jagaji ñu ko yàlla yàlla saafara ko tànn may ko tànn bu gaaw incha ginnaaw loolu message bi nga xam ne maa koy lancé ci parents yi moom mooy ñu ngi jëm ci li nga xam ne moom mooy grande vacance muy ñetti weer yoo xam ne xale yi daanaka duñu def dara yaay yi ak papa yi ñu si ëpp dañuy liggéey te xale yi dañ leen bàyyi ginnaaw kon ñu bàyyi xel bu baax baax loolu ñu xool ndax xale yi. ay ay mas ay lañu yoo xam ne yàlla daf ñu ko dénk kon responsabilité boobu faw ñu sàmm ko kon loo génn génn war nga bàyyi xel sa njaboot ndax njaboot bii de ñoo lay noppal ëllëg bu ñu sànkoo sa ëllëg du neex bu ñu baaxee nag sa ëllëg macha allah ci kaw suuf te àllaaxira tamit waxi noppi ndaxte bu ñu sànkoo fii àdduna sa àllaaxira doo teg benn paa dudul say say doom téye la ne la li war si ñun dafuloo ko kon ajana moom doo fa dugg di ñu bàyyi kon nañu xam ne responsabilité la nañu gën a góorgóorlu li ñu ngi góor góorgóorlu sax mais nañu gën a góorgóorlu parce que yombul yombul yor njaboot yombul mais nañu gën a xar suñu tànk tubéy def si suñu kéemtalaay kàttan ba yàlla yombal ko beneen bi tamit ñu ngi. Euh, remercier ñi nga xam ne ñoom ñooy organisation gis nañ leen depuis fan yi yëpp du ma ne tey du ne tey xëy na tey ngeen leen gis mais ñun gis nañ leen avant tey seen njiit di Baba Sow mu bàyyi yitteem yëpp ñëw du ñu jàppale kon dañ leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen bàyyi aussi ak borom bi subhanahu wa taala ndax dara indiwu leen fi du jërëjëf du xaalis du daraja dañoo ñëw rek liggéey ngir yàlla dañoo ñëw liggéey ngir yàlla kon yàlla bi tax ñu jóg ñu bàyyi leen ak borom boobu moo fay leen gën gi fay incha allah kon lii laa amoon ci ay kàddu ma leen di. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. maa ngi tudd Cheikhna Cheikh Sadbou Diouf nekk école nationale des beaux arts. man nag eh, damay def eh, le monde de spectacle tout ce qui est monde spectacle daaw ñëwoon naa def eh, prestation xam nga gaa yi kontaan nañ la moo tax ren ma ñëwaat bu ko toj bu ko toj quoi bu ko toj bi léegi ma ñaan leen ngeen tàccu bu baax.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 macha allah loolu loolu daw na yaram daw na yaram Yaxya des fa Yusuf Ngop para préparer déwén ah yaa ñu defal démonstration yaa Oustaz Mouhamed Sam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي دودو بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من قوم ما شاء الله kon dañuy dem ci Youssouf Camara mu jàngal Al Qari'a Assalaamu aleykum wa rahmatullah ismi Yusuf Kawar bismillahi rahmaan rahim alqaari'atu mal qaari'a wa maa adraaka mal qaari'a yawma yakuunu nnaasu kal faraasil mabsuus wa takuunu ljibaalu kal ixmil manfuus fa ammaa man saqulat mawaaziinuhu فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هانية. Macha Allah ñu woo ki nga xam ne mooy Zakaria Keita

الدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يود على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون macha allah. macha allah ñu woo Aïcha Diallo. Aïcha Diallo jàngal ñu sóoratul Maza. Aïcha Diallo. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu ismi Aïcha Diallo. ñu continué waa CP nañu préparé. La lit le Coran car à l'islam c'est de devoir pour chaque garçon et fille d'avoir accès à l'éducation. Malgré tout cela Olof Njaay nee na jigéen soppal tabu wóolu. tàcc nañu xale bu baax a baax laay nee na jigéen sappal te du wóolu nekkinu jigéenu nekkinu tisla nekkinu jigéenu nekkinu tisla ñu naan jigéenu come on mooy sappal te du regardez ça ñu naan jigéenu mooy sappal te du wóolu nekkinu jigéenu nekkinu Islam jigéeno mooy soppal teewul wóolu ñu naan jigéeno wax dëgg jotee yaay ñu ñàkkal la kersa su wax dëgg jotee yaay ñu ñàkkal la kersa gàcceel nañu la yaay suufeel nañu la nu naan jigéenoo mooy sampal te bu looloo nu naan jigéenoo mooy sampal te bu looloo takbir kalimatu tawxiid waa xale yi est-ce que mën ngeen seen borom ku seen borom ku seen yonent asam asan asam asan one two one two three play voilà merci les enfants parents yi tàcc nañ xale yu baax a baax a baax بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أهلده كلا لينبذن في الهتمة وما شهيدا إنها عليه مقدا في أمد ممددا إن Thank you.

والقمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله pastoor ñii seen âge macha allah nu ñu taree alquran bi nii macha allah ala kulli haalin maxaarijul huruf mumtaaz waa asawtu aydan macha allah nañu ñaan yàlla yàlla nañu gudd fan waay incha allah euh, suñu passé si CPA bi mooy CPB léegi dañuy dem ci CPA Rabiatu Sumbunu ñett la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ismi ruqayatu ismi ruqayatu summa a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wash-shamsi wa duhaahaa wal سقاها فقال Umbulu barakallahu fik summa Mariama Fallou Seye CP CPA falyatafaddal mashkura aw assalaamu aleykum wa rahmatullah ismi Fallou Seye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أرسل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ما شاء الله سيد التكبير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 إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم الله أكبر barakallahu fiikum jazakumullahu anna xayral jaza waaw léegi ñu ñëwee ñaari CPI CPA ak CPB mais am nañu benn sketch bi ñuy a def Seyda français bi euh, bonjour chers parents soyez les bienvenus maintenant les élèves euh, les deux CP CPB vont vous tout de suite un poème qui est les parents Donc les élèves du CP, CPFB, venez ici. Ah d'accord. Ah. Maman, viens ici. Les autres. Mes parents. Une, deux, trois. Mais je suis faire. Voici ce que mon cœur me dit. Je respecte. Applaudissez les élèves du CP, s'il vous plaît. Allô, allô. Mes amis, mes amis. Est-ce que ça va? Et vous êtes des yambar yambar. Et vous êtes de Nago Nago. Et vous êtes de Dioyo. et eh, tàccu leen seen bopp ñu xool. tàccu leen seen bopp. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لعوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن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 عذابا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول للكافر يا ليت زدت ترابا ñu woo Mouhamad Diaba jàngal ñu naasiya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 يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نهرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإذا هم بالساهرة صدق الله takbir yow Mariama Tourbe mu jàngal ñu hal ataaka hadiisu Muusa ma neex nga ni Muuse aleykum wa rahmatullaahi أيها السادة والسيدات والآباء والأمهات والحضور الكرام اسمي مريم البجلو في الفصل الابتدائي الأول أقرأ لكم ما تيسر من القرآن الكريم في سورة النازعات أعوذ بالله من الشيطان محمد استهنى نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يشرح ثم أماته فقدره ثم إذا ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وإن عذبا وزيتونا ونقلا وحدائق علبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءتكم صدق الله العظيم المطففين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 الذين إذا قالوا على الناس يستوفون وإذا قالوا أو وزنوهم يوصلون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين إذا الذين إذا اكتالوا على الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد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 والقلب takbir ñu woo Fatima Binta Ba jàngal ñu buruj ismi Fatima Binta Ba fi fasli ibtidaai awwali aqra'u lakum ma tayassara min al-qur'ani fi surati al-buruj Ouais. Avant ça. Non, non. macha allah takbir moom signal la moom. parce que da nga fi. ku ya Mouhamad Razak. Mouhamad Razak anam. bismillah. français bi ki jël pee mooy Nafisatu Koné CIA français ah Nafisatu Koné Nafisatu ñëw na wala ñëwul Nafisatu Koné CIA ba tey français ah Nafisatu tey indo Nafisatu daa daa def endo de ah Nafisatu da ngaa endo ki ci topp mooy CIA Aminata Sakho Aminata Sakho Aminata Sakho CIA en France deuxième Aminata Sakho moo jël deuxième. bi ci topp Bintu Tandian Bintu Tandian moom jigéen ñee jël lépp Bintu Tandian ana Bintu Bintu Tandian CI A français ah Bintu ñëw Adja Bintu ñu ngi lay féliciter troisième. léegi ñu ngi dem ci CIB CIB arab Modou Dembélé Modou Dembélé <laughs> moo jël première ci CIB arab Moubarak félicitation Modou sa <laughs> sët la jaana macha allah sa maama lay jox Jamil deuxième CIB arabe Aïchatou Gassama Aïchatou Gassama Aïssatou Gassama ah Imnatul Mudira macha allah ah <laughs> Amina macha allah ah kon de <laughs> macha allah Aminatou Gassama deuxième Mabrouk troisième CIB arabe Souleymane Diallo Souleymane Diallo Souleymane Diallo jeeri masha <laughs> masha Allah voilà classé i Euh, classe CI arabe jeex na ñu ngi jëm ci classe CI B bu français CI B français ki fa jiitu mooy Fatima Diallo Fatima Diallo anam mi ngi fi macha Fatima Diallo am na arabe am na français ah Tata Khadija macha allah ñaari diplôme Meme Meme Wari Ndiaye Meme Wari Ndiaye mais mais troisième ci CIB français Salimata Diop Salimata Diop ñawul kon ñu jëlal ko léegi ñu ngi toxu toxu ci CP CPA français wala arabe CPA arabe Fallou Sey Fallou Sey moo jël première ci CP arab macha allah félicitations Fallou deuxième bi ci CPA bu arab mooy Ruqiyatu Sumbulu ay Ruqiyatu Sumbulu du Sumbulu buy théâtre de déedéet waaw ah, du Sumbulu ah kii moom jàngkat la moom macha allah kii du théâtre kat. aywa Roqiya Moubarak troisième ci CPA ba arab Alpha Omar Ba Alpha Omar Ba prestation Alpha première léegi ñu ngi dem ci CPA français CPA français première Bouna Silla première ci CPA français Bouna Silla deuxième ci CP A bataille français Roqya Sumbulu Roqya allah ci arab am na tableau d'honneur ci français am na tableau d'honneur Roqya waaw waaw bu dee arab Adja Khadi laa njëkk a woo Adja bu dee mi ngi fii ki njëkk a woo mu ñëw fii am na lu ñu bëgg a changer moom Adja Khadi Diop jël première ci CPA france na jege si arab kon léegi ñu ngi continuer ba tey ci CP euh, CPA français troisième Alpha Omar Ba. Troisième, Alpha Omar Ba. Encore. moo jël troisième ci français jël troisième ci arabe. Macha Allah. Alpha Omar félicitations. Troisième arabe troisième français. léegi CPB français CPB arabe awalan. Abdallah Diakho. Abdallah Diakho CP première CPB arabe Abdallah Diakho macha allah Abdallah shukran mubarak aywa première ci CPB arabe deuxième ci CPB arabe Tako Kamara Tako Kamara Tako Kamara deuxième CP P arabe troisième ñu jël euh, Mouhamad Camara Camara yi mel nañu moom du lekk rek ay seen njëriñ de Camara Camara lekk rek waaye ñii ñëw mën nañu daal war nañu daal Samb lañ sant sant ñu Camara waaw ñi moom Samb lañ sant Mouhamad Camara. Cheikh Youssouf Baden Tastaïd ak Aywa shukran Camara Jamil CPB français premier Tako Camara ah Tako macha allah ah léegi changé bi ah Tako Samb la dégg nga ah dootul Camara <laughs> du bi Camara bi moom Camara mburu rek waaw Camara Puloox ah moo jël première ah, moo jël deuxième ci arabe jël première ci français. Uh-huh, macha allah <laughs> deuxième ci CPV arabe non français Abdoulaye Diakho Abdoulaye Diakho Aïna Abdallah tafaddal les meilleurs en français sont les meilleurs en arabe <laughs> al aqwiyaa fi al-fusuul al-arabiyya hum al aqwiyaa fi al-fusuul al-fransiyya macha allah jamil ah Diakho macha allah ñaari table d'honneur troisième ci CPV Seydina Aliou Gueye CPB français Seydina Aliou Gueye Seydina Aliou Gueye ah xale yi nee na ñëwul léegi na ci C1 Madame Tourouk, euh, présidente C1. C1 e e arabe. Première Ndeye Aminata Diaby. Ndeye Aminata Diaby. Première ci CP ci C1 e arabe. Mubarak. ñoom bee lañ nekk waaw. waaw C1 arabe bi laa waroon tàmbali maa jëm ma tàmbalee bii. ban bee la. bii mooy bee ñu ngi nii kii ma jox nii euh, bee la nekk ah C1B mooy Ndeye Aminata Diaby première ci C1B ba tey deuxième ci C1B Fatima Raki Diallo Fatima Raki ci C1B fa Raki Diallo Fatima Raki Diallo Hawa Diallo xalaat yi moom jigéen ñi ñoom jël nañu lépp moom góor ñi xaw ma anañu waaw jigéen ñi jël nañ premier deuxième troisième aywa Hawa Diallo troisième CI CE1B président après ma noppal jox imam tuuti <laughs> nga daal dalal tànk yi ah. donc c'est un bain xaw a jàlloo voilà léegi ñu ngi dem ci C1 terminal classe sympa C1 A première ci arabe mooy Mariama Tulbo Diallo Mariama Tulbo Diallo première ci CE A arabe Aïda Mariam tafaddali مبروك مريم deuxième ci C1 bataille arabe Thierno Sanokoa a ah. Coro ah, Coro Sunko Sonko Coro Sonko Coro Coro Sonko deuxième ci arabe C1A Coro Sonko illustration troisième ci CEA Ibrahim Fofana Ibrahim Fofana Ibrahim Fofana troisième ci C1 A <laughs> macha allah mubarak jamil président ñu noppal ñu jël imam Fofana mu ñëw àggali bu ko defee président mën na tuuti tànk yi dañu ragal taxawaay bi yàgg ñu dem ci c de léegi français bi ba tey C1 C1 waroon nañu jeexal C C1 ara A français première euh, ba tey Coro Sonko Coro Sonko première France français CEA moo jël deuxième ci arabe jël première ci français même classe CE1 ah macha allah Jamil aywa shukran deuxième jël leen deuxième Mariama Tulbu Mariama Tulbu Diallo deuxième Mariama Tulbu Diallo deuxième ci français CEA Masha Allah Mariama troisième ci classe bi ba tey Abdourahmane Touré Abdourahmane Touré troisième CEA français léegi ñu ngi jëm ci classe C2 waaye élève C2 yi ñu première ci C2 arabe Nuha Tunkara Nuha Nuh Nuh aywa Nuh Nuha Nuh Nuh Tunkara aywa Nuh masha Allah Nuh Tunkara deuxième ci C2 arab Mariama Jaariyatu Kamara Mariama Jaariyatu Kamara Mariama Jaariyatu Kamara Kamara Kamara yi fi moom ah kamara yille wala kamara pullox aywa troisième ci ba tey C2 Mariama Dan Dalanda Ba Mariama Dalanda na Mariama Dalanda Ba ñëw ah. yaa Oustaz. Xata Kabir. Mariama Ba. Mariama Ba. duna dalanda. hiya mawjuda. Mariama Ba faqat du dalandaare Mariama Ba. Mariama Ba. Mariama Ba troisième ci arabe classe C2. station léegi ci C2 français C2 français première Fallou Sey Fallou Sey di jëloon première ci ci lan CP CP arabe ci c français macha allah. Première arabe première français. waaw très bien Jamil si CD français Ibrahima Ba Ibrahima Ba Ibrahima Ba ah, kii la

Mariama Diouf Mariama est-ce que mi ngi fi Mariam Diouf ah waaw ah, pays arabe Sofiatou Dramé première cm Dramé, première. C1. À la deuxième, Mariam Kessouba. Mariam Kessou. Deuxième CM1 arabe. taxawaayu bés bi moom mooy ñëw sargal suñu ay élèves xam ne jot ko sànq ko sànq di def bu ñu tolloo ci jamono yi dañuy organiser benn fête pour xale yëpp d'abord dañ ciy récompenser les meilleurs ensuite bëggal leen comme chaque année papa est-ce que seen yi ngeen def yëpp pour xale yi tey bëggal ñu est-ce que seen xol seet na bi nga gisee salle bi tey day mel day parce que ci loolu lañu lañu tàngat boo yóbbu ci jàngale depuis quarante ans oto su la jaaxal mais mbégte moom am su suñu xëyee lii la xëy ci li kon ci li la ñuy yem donc moom mënu ñàkk xale yi dafa bokk suñu dund saa bu xale reetaanee rek bég su xale jooyee on a échoué échec la suñu alxuraanu karim bi ngay ñuy def si dënn xale yi si bas âge bi lan ngay yàlla ngay ñaax yi toog seen doom yi. waaw ñu leen di laan daal ne leen daal fu nekk ni daal diine moom mooy loo te mooy avenir u ñàkk ci xale moo tax di tànkat sa doom ci julli ci diine dafa baax surtout que ñun nga xam ne ñun ñaari côté ba ñu am enseignement bi léegi la ñuy jàngal xale yi alxuraan jàngal leen arab jàngal leen français en même temps dañuy former ay xale yoo ñoo war a bu ñu yore taxawaayu dañ koy yore ci taxawaayu diine yooyu daal la ñuy yëngu tax ku tey tey jullit moom ñu koy mën a xàmmee moom mooy mu xam diineem xam charte diineem te di ko jëfe Jibril Gassama ñu xam ne lii nii Demba Diagne ma xam ne ne kaay bi taawaay bu tey daal xanaa ñu sant yàlla julli ci yonent ba Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sant di sant ñëpp ñu ñëw teew ko fi tey parce que bis daal alhamdulilah bis bu xam ne daal bon bu am solo la parce lan la moo tax boobu yi ngeen baal ma xëy mooloo fi bi diini bi moo taxa ñu jóg parce que commencement ci xale yi. ñu jàngaleen xale yu ndaw yi ci diina bi ñu mag ñu yar leen ci jikku lislaam bi encore bon fu mu toll ñoom yi bu ñu seen kayit bi certificat ñëw ci amee eh, seen diplôme bi ñu génn ci jàng bi dañu continuer di wuti liggéey di jàngal ñu fay leen. ñu nekk foofu ay ay ñeenti at yi at yi ñëw toog mu ne daal ñoom daal dañu bëgg a boo seeti daal ñu uti ko benn place bi ndax mën nañ formé yeneen xale bi ñu jàngale. Fatou Gueye Fatou Gueye ñu si salle bi di rencontre bi Fatou ban euh, yëg-yëg nga tey si bés yàgg naa daanaka sama doom fu ne defee maternelle la toujours rek comme am contentement bu baax a a baax am satisfaction bës ci école bi gisuma fi daal dara dëgg neex yàlla ñu ngi jàngal xale yi ñu ngi ko suivre bu baax man moom personnellement moom nga ñu wax ci ban côté ndax dalay noppal ci kër ga nga mën wala day jox xale bi diine saxal alxuraan karim si biir dënnam si ba âge bu nekk nii. waaw ñaar xale boo ko génnee sa kër bu xëy dem jàng di nga am temps bu xëy nga toppatoo sa kër waaye bu la paree nga am sa défation mooy que ñu ngi jàngal xale bu baax côté arabe bi côté français bi macha allah ñu jàng bu baax a baax a baax a baax dëgg na daal ñu jàng bu baax a baax si wàllum diineem. da ngay gis sax yenn kii yow yaay sax da lay corriger que ne waroo ko def wala waroo waxee nii wala waroo defee nii moo tax ma ne am naa satisfaction bu baax ci école te tamit nga xam ne xam nit ñi dañoo bëri te bokkul mais ku ñam man li ma ñam doo bàyyi mukk sa doom jëm ci leneen man ba sama doom duggee alxuraan ba tey ah néew ma xëy na néew ma man maa fa indi ñu bëri de mais genn wàll gi ñëpp sama doom moo tax ñu ñëw alxuraan ku ñam li ma ñam ku xool alxuraan xoolaat leen doo bàyyi ba sa doom nekk ci leneen sant yàlla soxna si mën li mu lay jaajëfal ñu ngi lay jaajëfal bu baax la jàngee sama yoon ñu ñëw def si conférence de fin d'année si école Alhuda donc loolu la sama présence waaw sant yàlla sant yàlla en fait euh, jullit bi rek laa doon jullit bi rek laa tey boo dundee man yàlla may la njaboot ah bu yëngu ci école boo xam ne ñu ngi koy xamal diineem di ko xamal euh, di ko xamal li nga xam ne mooy jaamu yàlla te nga toog assister ci une bu nga xam ne nii ñu ngi fees dell ak nit bon on peut pas compter la wax ñaata place moo ko sa doom taxaw parmi les élèves di tari kooku c'est quelque chose na daal vraiment macha allah. Euh, ah man la seet waaw farlu boobu ngay wax ci biir kër yi côté jigéen man c'est le contraire parce que samay doom moom lépp sama doom la fekk kii ma àndal bi jigéen sama njabootu jigéen la sama doom bu que attachement taxaw euh, bay ci seen waar parce amul lu dul diine tey boo fekkee ne diine jiit na ci yow pour la sànq bu yomb daal bu la këf bu yomb loolu nag mu nekk lu ma teel a mu nekk aussi lu nga xam ne ñun ñun ci lañ ñu teel a tàggat ci loolu mais pourquoi pas aussi ñun ñu def la même chose suñu njaboot ñu fexe leen instauré ñu teel xam seen diine teel ko jàng ñu jiit si ñoom parce que defagul effort mais je pense que allah ci côté diine li ñu ci am ko ñu defal bu baax ñu ci sant yàlla